kanam tuuti. incha allah euh, ma doore ko euh, concours général. Mhm. Euh, jàll na ci ay bis gi. Mhm. génne nañ ñaari élèves yi ñu ñoo dàq jàng ci seenu maas. Mhm. waaye invité woon nañ ci nee nañ waa daara ji. rawat na ñi gagné ay concours ci ay grand prix. nooy jàngate loolu. waaw alhamdulilah mubaadara de mubaadara mooy lu bees la. wala bokk lu yokk la ci li fi nekkoon. ci yokk nag daara ji bëgg na ko lool. dëgg daara ji bëgg na ko lool. niñ ko defee noonu lañ ko daan defee am na lu ci yokk lu ci daawul bokk. kon liñ ci defaat mu bokk su ci am na ci solo lool. Hmm? Euh, am na ci solo ba nga xam ne kon daar ji yëg na boppam ne kon moom tam bu defetee concours yooyu. bu xewetee mu bokk. la ndax boole nañ ko ci. te daf ci war a bokk nag. Hmm. comme loolu bi jéego la ci ba am am solo. Hmm. boo xam ne bii ci la ñu boole Euh, daara ji daara ji def cee bokk nag. Mhm. ndax mooy lépp nag. am na solo premier ministre jël fa kàddu waxtaan nag waaye waxaale ci muuraay muuraayu jigéen ñi. nee na ay jamono am na école yoo xam ne dañ ko doon bañ waaye loolu moom euh, dut na ci baaram daal wane ne euh, maanaam nañ ko teg ci suuf nooy jàngate loolu. bu ma ko bu ma ko jegoon may ko bëy. bëy. bu ma hmm. may ko bëy. Hmm. suñ mbàkkee gonu jigéen ñi li ñuy daj ci muuraay ci école yi. di ko daj ci entreprise yi. di ko daj ci société yi. Mm-hmm. ba ci élection yi sax dañ ko daan daj. Mm-hmm. man ma sant cee toog ak euh, euh, monsieur élec monsieur monsieur élection. élection Cheikh Gueye la woon de. waaw Cheikh Gueye ma sonn koo doon de. toogoon naa ceeg moom xam na mi ngi may dégg. ndeysaan. boobu marché xam di Diouf ñoo ànd. Mm-hmm. ndeysaan. ànd naa ñeneen ñaar ba ñett juróom lañu woon. ndeysaan. toog ceeg moom waxtaan ci ba mu ne ñu léegi lii moom daa war a dakk moo tax kon bu ñu ko déggee ci gémmiñu premier ministre. Mm-hmm. dañ koy tàccook ñaar loxo. dëgg la dañ ci mën nag nit yëkkati fi dara ne ay ca day am yëkkati la déedéet. Mm-hmm. léegi nag bu ñam ko yëkkatil na ay ca nag ñoo ñoo ñoo war taxaw. ñoom mm-hmm. ñaanal ko nag jàppale ko ca ba loolu a am. ndaxte kat bu caaxaan wi dëgg des léeg-léeg gone gu jigéen mën a jàng baraw Ismaïl Yacine. dëgg la waaye mu ñëw ñu ne ko malgré. waaw dëgg. mën ngaa jàng loolu waaye. soxna soo sant Ndour keroog dina làkk tubaab yi neex. waaw te leer yi. Oumy Ndour. waaw. waaw soxna Oumy ana mu nekkoon. ndeysaan fu mu nekkoon mu ngoon ci frigo bi. dëgg la de. te kooku war nekk ci frigo. Hmm. Hmm. elle parle bien. ndeysaan oui. allah <laughs> ndeysaan ndeysaan. am na solo am na solo Oustaz kon loolu jàpp nga ne euh, bu bàyyikoo ci autorités yi gën a kawe en tant que premier ministre euh, lu daal xel la ci daara ji ak jullit yi. man de séentu woon naa ko lool. Hmm. bëgg naa ko lool it. te itam jar naa tàccoo ñaari loxo. ndax lan. man damaa xam li ci jigéen ñi di daj. Hmm. ndax dañ ma ciy laaji laaj. Hmm. dañ ma ciy laaj ay laaj. Hmm. damay liggéey bërëb sàngam du ñu ay ku muuru. damay liggéey weer sàngam du ñu ay ku julli. réewum Sénégal. réewum Sénégal. bu ginnaaw subaa ñu dem màggali Touba. bu ñu fa jógee dem Tivaouane. dem Ndiassane ak cene ba. waaw quatre-vingt-quinze pour cent yi nekk ay jullit. nga ne ci benn barab di fa liggéey ñu ne doo fi jullee. <laughs> loolu garaaw na lool. wallaay ndeysaan loolu garab na lool loolu la fi war a jóg. Hmm. waaw. même ci école nga nekk nga ngay jàng ci ecole bi ñu la foog nga muree ko. Hmm. man de ma jàngale lu ci muri doon. xaw ma ko <laughs> mën naa jàng ba pare te muru ba yiw. moo taxit. waaw ah, vraiment. te te hmm. ngooni soo sa raw de. war kàlla. wallaay ndeysaan daa muuru ba pinge ko. ñoom ñaar ñëpp sax laay bëgg wax ndax kenn ki si naa ñu wane ko muy def karakaam. ab yar ab yar lum la may du la ko xañ. dëgg la yàlla xam na ko dëgg la macha allah. kon nag muuraay yooyu day dëgg yàlla monsieur le ministre jërëjëf. Mm-hmm.